waaw euh, xam nga combat bi comme ni nga ko waxee rek boo xoolee presque cinq ans yi nii ñu ngi koy dundu mais si kaw cinq ans yi il faut ñu xam ne ñaari champion yi nga xam ne ñoo war a bëre ku ci ne da nga am médical bu la teewoon a bëre ñu jóge fa Covid ñëw kon tey combat bi li ñu koy poussé yëpp amul benn jafe boo xam ne ci côté promoteur bi la jógee. lépp mu ngi jógee ci lutteurs yi ñaareel ñetteel bi moom kaaw Covid la woon kenn mënu ci organiser événement alors signature contrat nag muy face to bi amoon. Ama Baldé ñëwul loolu kenn du ko rafetlu lii tax kenn du ko rafetlu et puis kenn du ko cautionné. Mhm. ndax tey su fekkee mbër bi dafa dañ ko jox ne ko am nga face à face au niveau de ses euh, au niveau de cosaan alors manager am ñëw signé avenant. c'est-à-dire manager bu xasee signé avenant mooy mbër bi engagé wu na. Mhm. ndax tey bu fekkee mbër bi engagé wul manager am du signé tey bu manager bi signé avenant pour wane ne mbërëm dafa war a ñëw kon ak lu man di xew mbër bi dafa war teew alors su fekkee ne nag euh, mbër bi teewul CNG li muy man mooy sanction lay def. sanction bi muy def mën naa bañ a nekk ci xaalis mais sanction administrative lay nekk sanction boobu ni mën nañ ko aj benn 6 mois wala 1 an wala 2 ans ndax loolu la yoon wax ci li nga xam ne moom la Ama ko mhm. mais mën nañ ko bañ a sanctionné financièrement mën nañ koy sanctionné financièrement ça dépend ci CNG ak ay textes am mhm. mais li ma wóor mooy texte yi daal na mën nañ laa sanctionné comme ni euh, am 1 an mën naa am 2 ans ba 6 mois mhm. Modou dafa yor lu nga xamante ni Ama Baldé moom la soxla muy euh, titre roi des arènes Ama mi soxla ñëwul yow loolu ban jàngat nga ci am ki nga xamante ni moo soxla ñëwul moom. waaw xam nga ñàkk ñëw moom moo jaaduwul c'est-à-dire même bu fekkee soxlawoo sax wala du couronne roi des arènes la ñuy xëccoo amul benn champion boo xam ne ni mbër nga ba pare professionnel nga sa mën a signé avenant bu woon da ngaa war a dem ci face face bi ñëwoo ci face face bi yàq dafa bari boo xoolee tubaab yi dañu xaw a rawee tuuti mooy su fekkee dañuy suivre MMA bu ñu nee suba la combat bi di nga gis ñaari champion yi nga xam ne ñu war a bëri MMA ñëw sumee ko teg seen balance posé wax seen dernier moo pour jëm seen événement demi lii na dañ ne la 15 jours avant combat wala une semaine avant combat kon jàpp naa ne mbër bi lépp lu mu def ñu wax ko ko tamit une semaine avant war na mën a jël ay responsabilités am ak ay matuwaay ba nga xam te ne nii ndaje moom dina fa teew.